xool fii rek la leen sànni benn kii mu commencé taw taw bi dafa gaaw kenn mënu ko ji. kenn mënu ko ji. bu ñu ko fayee daal lañ koy doon gis. bu ñu ko fayee lañ koy doon gis xam nga. loolu dañ ko fayee ñoom borom bagage bi ñëw di commencé di xool ci lañ yëkkati rek gis ko mu bu xam ba ñuul. waaw da nga yaakaarloo faar yi yëpp ay yaxam bañ ñu ko. jërëjëf gis nga loolu moo nekkoon xibaar bi nga xam ne moom voilà xalé bi fii la deewee comme nous leen ko waxee avant gaay yi di ñëw ñu yëkkati ko mu ñuul daal di xam fi la xalé bi déwé quoi.